bi ku nekk xam na ndoxu Kaolack xam na ne am na xorom am na am na salte am na lépp mais dèjà bu ñëwee si buñ ñun pour duñ ko traité da ngay xam automatiquement ne am am na changement comme li ma la wax rek wax naa la ndox bi nga xamante ni recette bi si bàyyee ko comme xorom beeg yooyu ak li nga xamante ni mooy bu normal ne xam nga bu booxee xam nga ak ndox par rapport ak ndoxu robinet bi xam nga yooyu comprendre nga ko loolu la filtre yi ba bëri mais duñu duñu parfois da ngay gis kii ne diw moo daa ko ndox diw moo daa ko ndox loolu yëpp mun na nekk te en plus que machine bi da am fu mu toll daa laaj entretien donc chaque semaine dañuy def entretien wala chaque un mois def ko entretien waaw do non machine ba nag tellement jàpp ma kii bi mais société français la société français la ki ki ko présenté fii ñu wax Diallo moom am Mamadou Abdoulaye Diallo moy sama patron fi mom mom lay liggéeyal fi mais man maa yore fi man ma séré ki bi fi ci Kaolack sama boo yëpp oui mun naa la ko ki ndax machine bi amna ay ki amna amna pompe ci suuf amna ay amna man comme article bi ni wacc na ci suuf 240 membran mo ci nek membran ni amna fuñ fu il faut dem ko changer moy wara comme lu sawaay wax parfois ndox mi dem ba xaw a changé dina gën a neexante yooyu daa dépendre na si membrane dépendre si entretien am na fu mu toll nga ko war a entretien lépp mooy tax ndox mi gën a neex ndax éegi bi am na fu am na am na muy tolloo ma dalay laaj entretien foo da nga entretien ñun nag dañ loolu dañ koy kii même bu taalee machine bi sax da am nañ appareil boo xam ne di nga xool ndox mi boo xam normal na wala normal na sans autant que ñu koy ñu koy génnee non ah, peut-être am na ñoo xam ne am na ñoo duñ ko naan am na ñoo xam ne da naan bu ma ko naanee damaa amee ballonnement am ñoo xam ne bu lu dul ndox bi duñu ko naan. Ndofane wala Taïba. ah waaw mais day am am na ñu koy wax mais ndox bi dañ dañ ko dañ ko testé à l'université ba ba mu jàll ñu ñu door ko installé ndoxu Ndofane am na ndoxu Taïba am mais ndoxu Ndofane ndox man am na client ñoo xam ne seen dépôt maa leen libéré bi dañuy def ndoxu filtre bi ñu doon ndoxu Taïba mais da seet fi ñu nekk da am ñoo xam ne duñu naan ndoxu Taïba ndax ndoxu Taïba boo koy roor wala ndox Ndofane da nga seet